bayre bu sax amna na ñoo xam mhm. dañuy am bayre 1 an bayre ba fay kay ma jox la am 2 ans am bayre fay am bo ah. xamanteni ni kay mën na la ko boko sango tay bayre bu tok nak señ bi di gëna yok boko sango tay tay tay tay nit ñi commencé la dégg te fi ni manam gis nga turu iblis <laughs> Alaji papa? waaw suñ borom lu mu bind rek lu nekk am ndariñ amna ndariñ iblis fi ne li alquran di di kawe kawe kawe bo ci génné batum iblis dara dootu ci des manam day manki léegi fi ne iblis mom bo jëlon tay ji nga bind yee yo xamanteni ni da ko man lool waaye mais sëñ yooyu tamit yor nga ko. ah daa ilaha illallah maanaam fi ne maanaam ni ma yàlla dimbalee ma mokkal ci salaatu ala nabi lu mu doon mokkol naa ci junni. waaw. Euh, ak yeneen ak yeneen asraar li ma ci xam bari na maa ngi ciy sant yàlla. waaw. ni ma bu ma waxtaanoon ci bayre rek da ngay jàpp ni bayre rek laa mën mais sëñ bi ñoo xam ne bayre tax ñuy wax lu bon pour am bayre mhm. am ñu yëkk daanu jóge ci kaw daanu ci di tudd mhm. ñoo xam ne bayre tax ñu filmer seen bopp pour wax lu garaaw pour ñu mhm. tëj na façon xam ne bayre la ñu bëgg pour am wërsëg bayre la ñu bëgg pour àdduna xam leen ñii bayre la ñu bëgg pour mbir ma ñuy ne mbaa commerce ba ñuy def mbaa ak lu ñu mën a def mais bayre njaay yooyu yëpp am na léegi allahuma salli ala sayyidina muhammad rafiixu darajaat waduudu rafiixu darajaat waduudu waduudu waaw boo ko xoolee 1782 la jàpp 1782 mooy 27 allahu 66 multiplié par par par 27 mooy 1782 am na turu yàlla tamit bu mu jàpp muy ajj xay lalun am na ñu boole ajj xay lalun sam xasun sax sax sarafat xisun mhm. fi ne nii bu fekkee ne yaa ngi liggéey allahuma salli ala sayyidina muhammad rafiixu darajaat waduudu sunu borom dana la may bayre boo xamante ne nii dana jaaxal adduna te 1782 nga koy liggéey. bu dee ci bayre ba tey ji mën ngaa bind zuyi na li naas. xubbu oh, oh, saxawaati. Oh. am na am ñu koy bind 7000. am na ñu koy bind 7777. waaw am na ñu koy bind 7. am na ñu koy bind 92. am na ñu bind 99. moom moom yooyu yëpp boo jël baax na. mais am na loo euh, koy booleeg parfum parfum kaafeen kaaf. waaw su nga fa or su xaalis ak suufu jumaa suufu marché. waaw bu ko defee boo ko dee sangoo moom par force da ngay am bayre bayre moo gën a yomb daa fi ne bayre sax ba ci ba ci xam-xam bu ñuul am na bayre mais bayre bu sax nag bayre bu sax am na ñoo xam ne mhm. dañuy am bayre un an bayre ba fay kaay la am na deux ans am boo ah. xamante ni nii kay mën naa la ko boo ko sangoo tey bayre bu toog nag a yokk boo ko sangoo tey tey tey tey waaw nit ñi commencé laa dégg te fi ne nii maanaam gis nga turu iblis <laughs> alaaji papa suñ borom lu mu bind rek lu nekk am na njëriñ na njëriñ iblis fi al li alxuraan di di kawe kawe kawe boo ci génnee baatub iblis dara dootu ci des doo maanaam uh, day manqué léegi fi ne iblis moom boo jëloon tey ji nga bind yaa iblis yaa iblis yaa iblis nga bind ko 1111 waaw imaginer rek li ma lay wax ni la lu lu maanaam loolu yëpp dama koy wax rek ngir nga xam ni zulmaani yu dafa am xam naa ko waaw nuraani yu xam naa ko fi boo bindee yaa iblisu junni yoon nga def ko ci njaq lu bees nga def ci yii doomu aadama di soxla ay dugub ay warga ay ceeb ay suukar ay xorom yooyu yëpp nga jël ko suul ko ci mbalit ba mu mat juróom-ñetti fan nga jël ko nga sangoo ko bayre moom yaa koy ëpp ci àdduna moom ak noo ko mën a amee di nga am bayre waaye bu dee bayre bi nga xamante ne nii maanaam ñi seen xol sell ñooy gisante di bëggante nga xamante ne benn naa fekk du la bëgg bayre boobu baax na salaatu ala nabi moo waaye nag mais sëñ bi bayre nag xam nga ñu lay tudd nii rek amoo xaalis tamit wax yàlla waaw waaye fi ne fi ne bayre nag ah fi ne fi ne sangatu bayre am na sangatu xaalis am na lan waaw turu yàlla yuy jaxe xaalis am na am na li ñu naan kimya u saxaada du du ay caaxaan maanaam du loo xamante ne nii da nga koy wax rek nii ci nit ñi di ko dégg wala ki am na am na saafara yoo xam boo ko sangoo day am xaalis par force nga nekkee woon day dañ day dañ day dañ fi ne boo ma ne boo mënoon a jël zuy na li naas jox naa nga bind ko 70 waaw la xalqu samaawaati wal ardi akbaru min xalqi naas walaakina aksara naas laa ya'lamuun nga bind nga boole ko ndoxum taw waaw ndoxum géej ndoxu robinet ak ndoxum teen ba pare di di di ko sangoo barke Cheikhul Khadim sunu borom dana la ubbi ubbi go xamanteni ni dana la mu joxna la ci ndigal meuna ko koo def ko defal ko kula neex wa ndax lolu lolu yep manam njëriñ la lo xamanteni jam ñep ko meuna a jëriñoo